loolu wéyee nag ci lu soxal nag wàllu yoon déglu gi ñu déglu nag ña fi woon kilifa ci nguurub Abdoulaye Wade ba léegi ñu ngi koy wéyal ndaxte nag ci bis bi maître Mbaye Jacques Diop gont na tontu ji wootepp waa division des investigations criminelles ñu gën ko xam euh, ci dikk ndaxte tamit ci audit yooyu tamit am na wàll woo xamante ni gendarmerie mi ngi ko ci doxal jamono ji nag maître Mbaye Jacques Diop ni ki démb ba mu xëyee ca dikk ba mu ñu ko dégloo ci diirub waxtu nag daal ci wàllu li nga xamante ni moo di ñaari milliards ci kopparu CFA yi nga xamante ni moom la ñu sàkk ci moom mu leeral ko ci kanamu waa CENTIF lii la àddu ci micro suñu naataango waa Assane Diop ak Abdoulaye Ndiaye. a xam ne nag damaa génn féex ndax dina la wax lépp teg naa ci seen bët te tamit démontré naa ko démontré naa ne loolu dara mu ci kon nag dama génn feex laa wax am jàmm am salaam maa ngi leen di gërëm di leen sant.